wax léegi mère Gnilane muy sa muy sa yaay sa wayjur bu bu jigéen lu ma mën a seddal ci moom parce que aussi des fois. loolu bëggoo ñu euh, si émission la ñuy def. waaw Richard <laughs> toi parce que des fois Kébé euh, jigéen ak yaayam dafay am benn complicité bu extraordinaire c'est-à-dire nit boo ko gisee ci ni muy doxalee ni muy waxee ni muy demee nga xam ni kii dafa am éducation te boo déggee ñu naan éducation Euh, jur moo tax ñuy wax lan mooy sa diggante ak sa yaay Maria. jàngi laa fay biram mooy sama lépp je pourrais même pas parler d'elle parce que en fait man sama yaay déjà duma ko rus sax ba léegi duma ko xool. da ngaa rus sa yaay. parce que sama yaay jigéen jigéen bu yiw la. ndeysaan. yaay dafa yaru. du si gis a xool nit sama yaay ba léegi nii du si gis a xool nit ñëpp yaay lañ koy woowee parce sama yaay dafa yaru trop. mosuma dégg sama yaay mu saaga bi ma juddoo ma xàmmee ba tey mosuma dégg sama yaay mu wax gros mot mosuma dégg sa yaay saaga mosoo dégg sa yaay gros sur la tombe de mon dégg sama yaay saaga i pourtant y a des mamans qui daa jamais dagg fu ñaw jamais boo waxee sax mu ne ay boo waxee benn wax sax mu ne ay sama yaay ragal na nit macha allah yar nañu ci doylu yar nag ci doylu sama yaay jàmbaar la jàngul waaye ñun suñu jàng bu demee ba ba bëtt tey sama yaay moo ñu doon toppatoo moom moo doon dem école. ndeysaan prof yi moom la ñu xamoon ak yëpp mu topp ñu bu baax a baax nag di ñu di ñu ñu xam nga du ma du ma ci sori parce que bu ma la nee sama yaay dafa yaru rek kon man su ma toogee ba ñu ne ma Maria da ngaa yaru dama ko koy santaatee bu baax a baax a baax a baax yar nañu ci ñu ngi koy ñaanal mu gën fi yàgg. amiin gën a wér te fekkee lépp parce que nag wax dëgg yàlla du yaay bu sonal njaboot mooy maire yooyu nga xam ne boo ko joxee ñaar téeméer sax mu yaakaar ne ay million nga ko jox yaay booy dundal gënal yàgg gënal wér mais man sama yaay mm. mooy Ndey Njaay sama mag suñu taawu kër man kooku mooy suma yaay moom ngay woowee waaw parce que dama ngi naan suñu maam la maam dañ koo maamoo daal dañ dañ koy tooñ dañuy fo mais Ndey Njaay man moo ma yar moom jëkkëram bas ñoo def presque lépp ci man sama yaay diib nga xam ne fu ma toog tudd ko moom mooy sama magu yaay ci moom laa nekkoon. Hmm. chaque vacance foofu laa daan dem wala ma dem film laa ci ñoom donc éducation bi benn lay doon parce que ñi ma yar yëpp ñoo bokk benn lignée. léegi yow da bëgg a wax émission bi da nga koy jooy. waaw mais bu fekkee da nga dugg foo xam ne dafa dafa grave sama soo tuddee sama yaay dinaa ci wax tuuti rek mais duma ci mën a sori parce que c'est ma vie ma maman. macha allah yal na yàlla guddal ay fanam. Hmm? bàyyi ko ci ci seen kanam ba si kanam amul pause non non non Maria bul jooy ma ne ko non tey du ma jooy damay am ful la mais quand même y a yoo xam ne dafay dafay compliqué quoi. pas pas de ah pause dañuy continuer waxtaan ah, ndax dimanche la fi mu ne nii